ndaje bi tey xam ne ne dañoo jëmoon ci journée de la femme le 8 le 9 ñun xalaat le 10 ak dimanche bi woo ci suñuy yaay suñuy mag woo ci suñuy rakk ba pare sargal si ay jigéen yu am solo ay jàmbaar ay naanaan ba pare am thème ci violence faite ndax gis neen li fi xew fan yi ci journaliste bu mag boobu ci PDG boobu Maimouna Ndour Faye waaw ñu xam ne métti nañu Euh, moo tax la diis bi ñu ñëw indi thème boobu pour méttit ko waaye waxtaanee ko waaye bàyyiloo nit ñi xel ne jigéen kenn waru koo def lu métti ndax la femme est un trésor waaw plateforme Kaolack bi ñu bokk dee dañ ko doon mbebet di ko xalaat ma ànd ceeg Ndeye Penda Diagne ànd ceeg Joanna Sané ñu waxtaanee ko tënk ko waaye tey nag man ma am ci ay jigéen yoo xam ne ñu ngi nekk ci marché central nekk ci cœur de ville te ne ma xale nga waaye am nga loo gëm am nga loo bëgg loo nekk boñ ci wooy ñu dugg te tey yow yaakaar naa ne ni nga gisee tey ñu indi ñoom it seen sargal wane na ne ay jigéen lañu waaye ñu am ful la ñu am personnalité waaye ñu am xëy kon ñooñu pour nga jàppale leen lu yomb lay doon. bi ngeen bi ngeen koy créé lan moo ko taxoon jóg lan mooy cëslaay waaw Kaolack bi ñu bokk nag tey dama ne. ça concerne les femmes de développement parfois sax ma tooñ soutenu par les hommes te tey. Euh, parents yi rek wane neen ne ñoom ñoo ñu jàppale waaye tey man ba may ñëw ci Kaolack bi ñu bokk di ci wax ak bëgg ko ak gëm ko mooy Kaolack tey ñun ndaw ñii am na ñoo xam ne li leen fi métti dafa bari mooy parfois nañ ñu war a téye dañu ko téye lañ ñu war a boole dañu ko boolew moo tax ñun ñu ñëw ne Kaolack bi ñu bokk saa concerne les femmes de développement waaye dañuy jëmmal Kaolack indil Kaolack lu bees muy Kaolack bu yees te bees ay ndaw nag di ko def incha allah. wallaay sant rek ndax munoon naa demee neneen noon neen woote kenn du ñëw waaye am na ñoo xam ne bañ mënul ñëw ndax fi réew mi toll dañoo yónnee te tàmbali rek leen nekk ak door a débuté plateforme boo xam ne amagul 4 mois tey macha allah ñi ñu wuyu si ñi ñu dooleel ku mel ne Serigne Fallou kebe ah ku mel ne docteur Macoumba Diouf ku mel ne ibu Bambara ku mel ne Djibi Dia ku mel ne le Dage Tamsir Gueye ah kulim Dioum ajaratu tunjung bay Ndaya Bi fal ah ba ci madame tal Ndiaye Mbow yonena kon li dafa neex te tambali mu non neen wote ken du ñew te dañ kay nangu ndax tout début est difficile. Mhm. fatali ñu tourbe soxna Mary gay coordinatrice de la plateforme Kaolack bi ñu di am kontante bu baax di rafetlu aussi wayu ñep parce que buñu waxé journée de la femme euh, mu démé ni parce que non la war démé parce que dañuy sargal ñoo xam ne ñu mat a sargal lañ di sargal ay euh, nit ñoo xam ne euh, ñun ñëpp bàyyi xel la at na yëpp bàyyi leen xel ñu am lu ñu liggéey ci Sénégal rawatina Kaolack bi ñu dëkk ku ci mel ni ay ñoom Maman ñoom day Abi Fall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc bu ñu waxee journée de la femme rek dafa tënk lépp parce que journée boo xam ne la tey soo xoolee dañ naan Sénégal lépp facteur boo jël rek jigéen ñi dañ ci am taxawaay bu am solo parce que muy ci kër yi muy ci société bi muy ci milieu politique muy ci leneen ak leneen lépp loo jël rek jigéen dañ ci am taxawaay bu am solo buñ ñu ci am donc bu ñu taxawee di sargal ay jigéen ñoo xam ne dañu am euh, pastef ci fànn yooyu noonu donc mën nañu wax ne euh, teg nañ ko fi ñu ko war a teg mhm. plateforme Kaolack bi ñu bokk nag nekk plateforme boo xam ne dafay regrouper ay jigéen mhm. ay jigéen ñu jàmbaar ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci marché bi ñu di daan seen doole ñii ñu ngi ci bureau yi di liggéey ñii ñu ngi ci leneen ak leneen donc bu ñu óoree ba bu ñu boolee plateforme Kaolack bi ñu bokk woo ci ay jigéen kese d'abord bien vrai que nag yaa a des hommes yoo xam ne mu ngi suñu ginnaaw du jàppale mais li ci amoon importance mooy objectif bi ñu ci amoon mooy boole jigéen yi nga xam ne ay jàmbaar lañu jigéen ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy yeewu fajar nekk ci marché bi di daan seen doole soxla ñu jàppale leen donc ñun bu nekkee ay nit ñoo xam ne suñu borom daf ñu dimbale ñu mën a am ay ñoo xam ne tey jii bu ñu bu ñu leen fëggee seen i buntu dinañ leen ubbil pour ñu mën a jàppale jigéen ñi message ngay lancé voilà xamante ne moom moo di jigéen ñi balaa message bi ñuy lancé mooy tey comme niñ koy waxee ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sër tey góor taxawaay bu mu war a am jigéen dafa war a am taxawaay bu ëpp boobu noonu parce que tey muy ci muy ci famille yi muy ci kër yi foo mën di dem jigéen ñi ñoo yor lépp parce que tey jigéen ñi ci biir kër yi ñoo yor kër yi comme ni ñu koy waxee nga dem ci bureau yi poste responsabilité yi gën a mag ci administration yi dañuy préféré jox ko jigéen ñi parce que ñoom ñooy yeewu heure ñoom ñooy wàcc heure donc jigéen taxawaay ci société bi dafa am solo solo bi mooy dañu nekk ay jàmbaar parce que société bi ut yi loolu la laaj li mu laaj mooy jigéen ñi taxawaay bi ñu war a am te dafa nekk nag société boo xam ne léegi taxawaay boobu jigéen ñi ñu ngi koy matal bu baax a baax a baax a baax baax

tey ñoom ñii ni ci ay politiciens yëpp dañ koy wax bu cër yi ñëwee da nga naan góor ñi ñooy ëpp ay cër te pourtant coono bi bu ñëwee ñun ñooy sonn ñun ñooy sonn ci terrain bi ñun ñooy sonn ci biir kër yi ñun ñooy sonn ci lépp. Mhm. kon jot na aussi ñun ñu ñuy bàyyee xel di ñu jàppale bu baax a baax loolu moo jur tey plateforme bii Kaolack bi ñu bokk. ñu leen di remercier bu baax. merci beaucoup euh, di am mbégte bésu tey bi ak contentement ñëw fii man nag sama remerciement. dama koy euh, adressé suñu coordinatrice mairie Mariatou directement moom mi am initiative bi ba yàlla def tey bés bi am mu sagal jigéen ñi nag à travers moom ñun jigéen yëpp tey am nañ ndam am nañ ci sakk am nañ ci loo xam ne daf ñuy encouragé pour lu ñu def tey rek su ñu def lu ko am di wax ne rek femme la femme mooy lépp jigéen mooy lépp comme ni ñu koy waxee te lii rek début la am na leneen leneen luy ñëw di remercier ñëpp ñu ci jàpp muy partenaires yi suñu góor yi nga xam ne fu ñu nekk ñoom ñu fay nekkal ci xel ci xalaat ci doole ak yëpp di leen wax ne rek Kaolack bu bees lañu bëgg Kaolack bu yees lañu bëgg ànd ak suñu coordinatrice mairie Mariétou Ndeye Penda Diagne Dia ak yeneen communes yëpp pour mën a liggéey suñu Kaolack mën a liggéey suñu Kaolack wan ne jigéen place bu mu am ci biir commune Kaolack que ça soit département aussi maa ngi jaajëfal ñëpp di wax ne